pour Rewmi 24 TV dal leen ak jàmm mbokk yi Ousmane Diagne daal dinay génn def ab sortie def ay révélation yu doy waar moom moomu di Ousmane Diagne ma ngay xamle rek ne oto boobu noonu tata bi nga xamee ne rek gis nañ ko fële ci yaraax ñu daal di fay sànni ab cocktail molotov ba mo tàkk ba ñaari soxna daal cay génn àdduna moom moom mais ma nga sukkandiku ci rek lu waa Sénégal li ñu wax ne ab deux roues moo romb di sànni cocktail ba comme moom Ousmane Diagne ma ngay dànkaafu di wax ne manifestant yi amul leen kenn ku ngeen ci gis rek mu yëg ci deux roues deux roues bu amee rek su ñuy def loo saal bu boobu loolu ci état bi la fare moom moo def loolu dara jëloo bital cocktail molotov bi sànni ko ci état bi mu tàkk ngir bëgg rek ñu ay terroriste la kon bokk ma ngay di wax ministre Antoine Diome mi di def ab publication di wax ne ñi nga xam ne ñoom def jëf jooju noonu waa Pastef lañ kon yoon wax rek moom mooy safaan ba wax kon cocktail molotov boobu ñi nga xam ne ñoom ñoo ko tata boobu ba nga ñaari femme daal dinañ ci génn àdduna kon ñii di ci nguur gi def rek rek ngir jabol ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Pastef ki yëkkati yooyu kàddu mooy Ousmane Diagne jiital mafia kàcci kàcci te jamono yi sax moom kenn xamul rek fa la nekk moom mooy xam la yooyu la information